ay tur yu takku ñu bari jàpp ne itam bu yëf ya demee ba ci biir ñu gën a xuus dana am ay tur ci ay ponkal yoo xam ne danañ ci jot a rote loolu dinañ ko daal di waxtaane waxtaane itam ci présidence bu assemblée nationale Ayib Daffé bokk na ci ñi ki ñu joxoñ ne moom nag moo fay toogee ban façon toogin la fa nar a toog moom mu nga xam ne moo di Ayib Daffé ak itam euh, ban assemblée la ñuy xaar ci ñi nga xam ne ñoo di waa Pastef ndaxte amal nañu ab séminaire boo xam ne tàggat nañu ca seeni député urgence yi nga xam ne mu ngi leen di xaar ak itam yan façon député lañ war doon ndax mënees naa yaakaar ab euh, rupture daal di am euh, ci li nga xam moo di assemblée bi ci bu njëkk saa wolof Moustapha Diakhaté ak euh, mandat de dépôt ñu bari jàppoon ni quand mën na mënoos na mënoon naa ñàkk ñu mandat de dépôt ko ndax ay kàddu rek la yi ñu bari ñu ngi ko doon wax ne est-ce que féexaloon ko ne ko nag lii bu ci jaarati gënul ñu mandat de dépôt ko. waaw di wax ne bettul kenn ndax li mu wax dane fàng luñ dul jeex kon jarul. def mandat de dépp mu jëm li fi daan xew muy 6 mois. mais li nga gis mooy dem na franc grand délit ndax su ma juumut le 28. waaw ginnaawaat suba rek. waaw kay léegi nag mu des li ñuy wax. xam nga man damay wax ne yenn nit yi seeni dëgg laa xamut fu mu war a mën a nekk dañu war a nekk pour ñu am penc mu dal. ñu war a nekk bu dee ña ca nekk ne ay droit de l'hommiste lañ mën naa ci tudd ku mel ni Alioune Tine nekk daf fi nekk ak i moromam Seydi Gassama Birahim Seck keneen ak keneen ak keneen mais li may gis mooy chaque fois droit wu ah, coupable yi. Mhm. lay défendre coupable yi tamit am nañ droit maanaam tey ñi nga xam ne dañoo def wala ñu doon auteur wala droit wu auteur yi boog ma wax ko parce que fi mu toll nii il est présumé jusqu'ici mais bu may wax mooy ki nga xam ne dañoo ne dafa def supposé boog wala nangam wala koo xam ne sax mën naa koo waxee noonu parce que lu ne fàng la moo tax ñu yóbbu ko frac benn waaye doo gis mukk muy défendre victime yi mhm. ki nekk victime ci viol wala ki nekk victime ci ñu sàcc ko wala ki nekk victime ci ñu rey ko wala ñu rey mbokkam wala ñu reyal ko mhm. doo gis Alioune Tine leen défendre man nag dama jàpp ne nit lu mu def def su yàggoon bañ tëj ko it ñu ne fañ ko tëj baaxut méngoowut ak fu nit nekk kooku boobaa jar naa defendre léegi ma liir ci tey la tribune mu ne euh, moom Moustapha Diakhaté deful lu may wax li mu xalaat ñun ñëpp li ñuy def dañ koy xalaat ki jóg di sàcc sàcc ji sàcc la sentir ki jóg di saaga ndey sàcc la sentir saaga ndey ki koy wax noonu moom tey benn muy bu dee ay avocat man damay nangul avocat lépp lu mu def pour défendre client man du ma ko ci ŋàññi même bu dee mën naa ci am xalaat ne ko li nga wax nii kat demeewut ak noonu wala du dëgg waaye xoolal ñaari avocat yi défendre Moustapha Diakhaté bi benn nit rombee ne leen da ngeen ni muy kàddu goo xam man jàpp naa nit waru koo xam ak waaye kooku ñoom bu ñu ko xàmmee woon ba jàpp ko tey pourtant loolu daf leen naqari te ñi ngi bëgg buñ sañoon loolu waaj ko wax te moom foofu mu nekk li ñuy def mooy bokkul sax ci ñoom fa ñuy liggéey muy tribunal mais mën nañ leen a wax ne peut-être que dañoo taxawoon di porter presse noonu laa ko jàppe wala dañoo taxaw di wax ak journaliste yi lu ci mën a am mais na sa ce taxaw di wax ak journaliste yi rek nit romb la wax la kàddu yooyu daf la déranger léegi anamu nag Moustapha Diakhaté mi nga xam ne dafa toog ay sénégalais voté ba pare mu wax leen ne yéen vous êtes des maudits maanaam baatu alku loolu lay tekki di baatu arab boo xam ne dem na ba dugg ci làkk yi euh, maanaam te du firi lu may torox mm-hmm. da ngeen a torox léegi baatu da ngeen a torox bi bala nga koy wax mooy xoolal ndax bu sa sëriñ nekk bokkee te wuute mënu ko vérifier mënut a wax tey nañ fi mu aju tey muy daara xudóos sëriñ sa fa nekk yépp amul ñu ci voteel Pastef moom tey dafa am doom waaye na xool ndax bu doon tey baayam lañ ko wax wala doomam lañ ko wax kon baat bi est-ce que luñ war a wax la wala déet wala comme li alintin Tine wax ne waaw liñ koy wax buñ ko yemale rek ci moom waaw kay d'accord nangu naa buñ ko yemale rek ci moom na law fépp mboolem koo xam ne taxaw na wax lu dul naka sax ci réew mi yu demee nii suñ bëggee am penc mu jàkk parce que penc mi dafa am kàddu yoo xam ne dama koy wax ne ñun suñu philosophie morale ñun waa Sénégal yamul ak philosophie morale bu France wala bu yenn dëkk yi ba li nga mën a gis muy société civile boo xam ne société civile à la française man dama jàpp ne warta mën a yem ak société civile à la sénégalaise parce que sa philosophie morale man tey euh, Aliou hmm. maafe mu neex laa añee macha allah ay maafe gerte maanaam maafe yàpp bu neex mu neex Um, waaye nii ma maafe mi jàpp tey <laughs> bu ma ma bilimbaanee ba ma jàkkaarloog yow léegi jékki-jékki géex gi am doole ba xeeñ uh, sëñ njaayam mi mm-hmm. ak yow mm-hmm. maanaam géex naa nangam nangam mais déranger wu la yaa ngi yeggale sa émission mais tey fii maafe mi ma añee bu ma jàppoon bu ma jékki jëkk ne peep fii mu xeeñ xunnu mm-hmm. voilà gis nga sa réaction maanaam bi ma nee peep sax yaa ngi gis yaa ngi ree maanaam pour ma wax la rek philosophie moralu dëkk bu nekk. yamuñu nuñ leen a jàppee. ma ne peep fii même boo bëggee ak loo bëgg bëgg bëgg continuer émission bi def affaire professionnelle. Hmm. dana am loo xam ne mi ngi la topp bi ngay xale nga xam ne bu ko nit masaana def. ci géew ah, wala ñu def ko fu mën a nekk wala ñu jékki-jékki ne diw nangam nang la lay jàpp da lay jàpp. Hmm. te alors que loolu bu dee ci France la wala yenn dëkk yi du nekk cas. waaw noonu ñoom ci la affaire bi di leen déranger. waaw léegi ñun ni ñu géex di bu fekkee ne lii du metti tubaab yi ba nga jàpp ne bu dee fee ñu ngi ko fay wax fii def ñuy metti loolu mooy li nga xam ne moo am kon liñ ciy njëkk a wax rek xam nga da ngay taxaw ñu naan rupture la ñuy xaar wala nangam dèjà c'est déjà rupture parce que lii ko mosaan a dal flagrant délit doo fa taxaw. Hmm. beneen bi nag muy loo xam ne ñi ma gis ñuy indigné wu parce que man indignation sélective. dama ci d'accordul euh, kii bëgguma nag ci àdduna may may may jàpp ne diw wala nangam nangam mais certain 14 avril 2023 à la DID DGID après 21 heures dafa am lu xew li xew lan la dafa am benn waay boo xam ne dafa gis ni yoonu réewam di doxee mu ne ñi ngi assister maanaam li ñuy wax colossardisation de la magistrature maanaam magistrat yi ñi ngi leen di colossardiser waxul magistrat yi ay colossar ngeen de maanaam tey nit di la buux li fi Macky Sall doon def yëpp te loolu confirmé nañ ko ginnaaw bu Karim Wade euh, ne gis sàngam nangam ak nangam lan moo fa xew woo seen député nekk kii kon magistrat yi loolu art la woon ci ñoom ñu ne leen bu ngeen watuwut kii leen nekk njiitu réew di l'exécutif dana leen waye di loo lan moo xew après le 14 mi ngi nii Vous pouvez lui reposer votre force. Voilà. Non, non, non. Maintenant, nous n'avons pas vu le mandat. Nous n'avons pas vu le mandat. Nous n'avons pas vu le mandat. Mais nous avons vu le mandat. En ce que tes droits sont on constate la violation. Absolument. On est peut-être comme tout constaté. C'est pas bon. Non, Diomaye, Diomaye, la loi, la loi, elle est faite pour être respectée. Et c'est en présence du secrétaire général du syndicat devant son bureau des impôts et domaines. Voilà. léegi li ci am solo mooy est-ce que lii la ñuy assister. est-ce que Moustapha Diakhaté dañoo dem këram cueillir ko vingt deux heures wala vingt et une est-ce que daa woor ba ngoon ak lu mën a am muy devant impôt et ñu teg ko fa ba moom sax moom mooy dëfal ñi mu àndal naan leen bëgguma coow li dalul Moustapha Diakhaté de amul benn droit am boo xam ne tey gis nga ne salfaañe nañ ko saaga na ñëpp ñun ñëpp ñu xas ñu mu naqari ñenn loolu mënula a jur trouble à l'ordre public man Moustapha Diakhaté dëgg la sama moromam bàyyi la mais jàpp naa ne sama baay du moromam sama papa Pastef la votel dafa yeewu fajar teel jógee mbuur gi mu nekk Joal ga nga xam ne fa la daan liggéeyee fa la dem jóg fajar bi mu vootee ba pare woo ma ah woote naa ba pare mais kooku la naan ma kooku la Moustapha Diakhaté di wax ne dafa alko wala man mi jóg la wax dama alku sama yaay sama nday man dem voteeli Ousmane Sonko ba di ma taxaw di ma masaw ñooñu lay wax ne dañoo alku man loolu mën na ma xari léegi nag boo waxee ñu ne la lu tax diw bon gis naa ci sax yoo xam ne ay nit a ngi ci taxaw di ci wax ce de personnel parce que nekk naa ci benn télé nit laaj ma ba ñu dugg ci kaawu Azura mu wax ma ma ne ko Azura li mu wax waxi réewande la te damay laaj Sampol Dias tey fii laa koy waxewaat mu porté ko plainte parce que mbir yi li mu def ak li Moustapha Diakhaté wax bokkut Azura benn nit la saaga muy bàyyi jàmm maanaam moom la nirooleeg astafurlaa may wax saaga sax parce que bëgg mu koo tooñ moom la nirooleeg dàngin gu mu gis ne diw dafa niroog bàyyi diw loolu Barthélemy Dias la ko wax Barthélemy Dias ak rakkam ji jigéen ñoo bokk benn baay Barthélemy Dias Jean Paul Dias ay baayam ci laa ne journaliste bi lii mu wax kii maanaam li ñuy wax euh, damaa juumoon sax di wax far fardu euh, kifaaya dafa am loo xam ne far fardu ayne la ak loo xam ne far fardu kifaaya la di ko méngale maanaam loo xam ne boo ko waxee peuple bi yëpp mën nañ koo jóg régler seen bopp mënoon a jóg régler ko seen bopp procureur de la république représenter ministère public autosaisiru mën a taxaw askan wi yëpp parce que loolu yëpp ñëpp ko bokk mooy li Moustapha jaxate def waaye bu dee li concerné Barthélemy Diaz wala nangam man mënumaa dem naan damay porter Azoura Fall parce que nee na Jean Paul nangam man du ma Jean Paul Diaz du ma doomi Jean soxna Jean Paul foofu laa waxee ne léegi nag bu ñu waxee nag ñi ñëpp nañ ma wax ñi muy naqare ak ñooñu nañ ma wax est-ce que li Azoura wax waxu na wala waxut yow nga filmeel ko sa bopp ñu filmeel la nga denc ko sa téléphone néeg ba jamono yi nga génne ko ma teg ci na Ousmane Sonko su ko nit dee jàppale sa comportement nga war a defar ba mu yegg ñun loolu la ñu amal askan wi Ablaye daf fi waxoon les libéraux bëgg na ñu yegg def fi cinquante ans mën nañ fi def cinquante ans mais dafa mujj échec loolu mujjul am Ousmane Sonko dafa wax keroog ñu ne deux mille cinquante ba deux mille cinquante mu ne leen mën naa ne mais pour que loolu mën a nekk il faut Pastef di critiquer Pastef loolu bërki démbam bële yegg siwaat ci foofu lu bari lu ñuy wax homme politique yi naan ñi ñuy àndal seen militants yi ma wax ne it loolu yoonu homme politique yi nekku ci sëñ bi man dama ma jur fañ ma juree sama ndey ak sama baay yar ma réew naa wala yaru naa ñoo ma yar ma am benn temps pour ci ñenn ñu mën laa jël jox la sëriñ daara bi mu jàngal la wala sëriñ tarbiya bi mu jàngal la à l'âge de sept ans wala douze ans wala nangam kooku sax responsabilité bi mu am ci taalibe bi politicien bi amu ko parce que yaa gën a moom wala ku nekk fii mais bi. il te faut nga dem ba am plus de quinze ans jëm kaw wala vingt ans jëm kaw ñii trente ans ñii quarante ans wala nangam nangam nga réew ci sa yaroo sa kër ndey ak sa kër bàyyi réew nga wala yaru nga amul benn responsabilité homme politique bu ñu ciy wax. Hmm. il est temps li ñu bëgg a def rek la loo homme yi mu am li ñu mën a def mooy homme politique bu arrivé ko au pouvoir teg justice bu moom boppam képp koo xam ne tooñ nga mu bañ ci xool kan moo tooñ. mais lan la def. Hmm. lan la def wala muy Azura wala muy docteur Diallo wala muy euh, Moustapha Diakhaté wala muy Amadou Bamba Sall wala muy Ibrahima dara bi saaga woon wolof yi wala Penda Ba ci jamonoy Macky Sall yépp mu doon penn parce que conséquence yi ñuy lii ñuy dund yépp ay conséquence la ci Macky Sall bu fi traversé yor ñu diggante bi mu yore ay nit daan nekk ci moom di def lu ñu warul def ay moom mu daan bàyyi di jël injustice di ko injustice di ko xeexe ñuy teg nit ñi injustice ci boobu laa jug jàmmaarloog Macky Sall di dénoncer la Sidi Lamine waxoon ne wax leen ko ca kaw la nga daan gis ab Ablaye Wade di ko ba Sidi Lamine di wax ay moromu sëriñam la doon wax attention. Mhm. wax leen ko ko ca kaw. la nga daan gis Ablaye Wade muy xew ci jamono Ablaye nga ne gis naa lu duxul dëgg soo ko gisee Macky Sall di def wax leen ko duxul dëgg sinon dana dem a dem ba def nangam man foofu laa nekk. te jàpp naa ne li may def mooy li projet bi laaj. Mhm. di leen jaajëfal bu baax. donc monsieur Djibi euh, bu dee APR moom dañoo jàpp ne teg loxo Moustapha Diakhaté Adama Gaye dafa